logal na ne tamit lu ci nekk rek jéem nañ cee dem kéem kàttan ak ñi nga xam ne ñoom lañu àndal bi équipe yi nekk fii ak équipe yi nga xam ne ñoo nekk fële ca makatal mu karam ngir mën a wàññi coono yi doonte xam na ne aj màkka ma mënul ñàkk coono waaye nag am na loo xam ne ci suñu responsabilité la ñu koy assumer ba mu mat bépp euh, ja jafe-jafe bu ci am incha allahu rabbi bu aj ji ñëpp ñibbisee li ñuy njëkk a def mooy dem ci évaluation jublu daar daar ci waajal édition bii di ñëw nga xam ne à cent pour cent dinañu ko mën a maîtriser ba lépp mën a jaar ci yoon incha allah ci ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne yàlla dafa dogal ah, ñu des ci at gi bi ñu demee màkk ginnaaw bi leen xëy na jàngoro dabe